ci jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalente dañu koy tënk ci lan mooy mbooloo ak lan mooy booloo bokk yi ànd bu nit gis ci tàggoo lay mujj ànd bu mën a doon bi ci gën a dëgër nga xam ne moom la aw nit di jëkk ànd ñuy ma ànd mën a soog a ànd ndax ci la seenu am di jaare mooy fas ab sëy sëñ bu mag bi bu ñu mosaan fas ab sëy ba noppi bokk na ca lam yaa ñaan yam daan jëfandikoo leeg léeg ñu bari dégg na ko ci moom yàlla na ci jàmm jëkk barke mujj ci waaye ñëpp xam ne tàggoo la ñuy mujj waaye yàlla na ci jàmm jëkk barke mujj ca lu mat a bàyyi xel nag ci ànd mbooloo ak booloo nag ana ñoom ñaar fu ñuy mujj gis nañ ci suñ jamono ñu ànd nis tuuti ñu doon mbooloo mu bari mbooloo mu bari nag ci diine boo xasee ba mat fukk ak juróom rek am nga mbooloo waaye rawati ñu naan nangami junni nit la nangami junni nit nag mbooloo lay gën a doon li ëpp ci mbooloo moo tax ñu ànd ba mu yàgg ñu tàggoo di waxante lu nekk bu mu jaaxal kenn ab ànd moo demee noonu ba ca du tàggoo rek mooy bi yàlla tax am na fu ñu suñu borom digale ñu doon ñu booloo booloo wala bokk mbooloo mu booloo doonte néew na lu muy am waaye digle na ci alxuraan ci ay warab yu wuute ñu booloo bu ñu demee ci alxuraan danañ ca fekk waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu mooy leen ci buumuk yàlla gi mooy leen foofu mbooloo mu fas yéene ngoyando ngoyandoo lay waxal ñu bokk pas-pas bokk liñ bëgg di bokk di bañ ñooñ ñu tudd mbooloo bëggoon nañ ko waaye ndigalul yàlla dab leen ca ña ko xamagutoon ndigalul yàlla dab leen ñu dem wuti ca mbooloo ma bokk ca wala tafarraqu waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu waaye am na foo xam ne it yéen ñaar ñi xamanteegul te xam ne yéen a bokk mbooloo mu ngeen bokk te diko déglu mom ba xam lu len digal yit yena ko bok amna fu ñuy waxe innamal mu'minuna ixwatun amna na ñu koy firee jullit yépp ay bok lañ waye liko taxé jóg moy ko xamne dafa bayiko da bayiko fam nekkon duggu ci l'islam faatu nono mom doxul digënté mi bokam waye alal la mu ci ko ñaka doon waye julit yépp koy doon kon ñoy ay bokam innamal muminuuna ixwatun yéen ñi bokk pas-pasu gëm yàlla bi yépp ay bokk ngeen yéen a bokk menn mbooloo kon booloo leen booloo leen ci mooy fa aslixu bayna axawaykum booloo waaye diggante ñaar ñuy jëflante it ak lu ñu mën a jëflante muy jëflante boo xam ne njariñul àdduna kese la walla lu tàmbalee àdduna jëm àllaaxira la moo ci gën a bari te loolu mooy li ëpp jullit di ëpp ci li muy war a jëfandikoo ba mu koy digle diglewu diglewu ko ñaar ak ñett rek walla ñaar kese yam ci yéen ñaar ñii déedéet daf koo def mbooloo moo xam ne dañoo war a bokk booloo ci nangam wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu wal udwan waaye gis nañu euh, foo xam ne yàlla wane na fa ni mbooloom kese kese amut benn njariñ rawati nag mbooloo moo xam ne àdduna dong nga leen boole loolu suñ ko waxee mën nañ cee dugal politique bi gis nañu ba tàyyi ñu ànd ku ne di wax ci moroomam lu rafet rafet rafet benn bis rek ñu xëy kenn ku nekk di wax ci moroomam lu ñagas a ñagas loo xam ne ñu ko wolof di léewee naan weñ woo ca dal rek dee ak weñ dem jafee raaye kon mbolo li ëpp ci fuko yàlla tudde mbooloom kessé kese moo xam ne ñu dara lu mooy ay intérêt kessé fo demee ci alcorane boko ci gissé la mo cey top walakin akthara an-nas li ëpp ci nit ñi moy mbolom li ci ëpp laa yuminuun amunu pass pass bu dëgër gëmuñ yàlla xamul lu leen boole waaye yàlla walakin akthara an-nas la yashkurun ولكن أكثر الناس لا يعلمون bari na waaye am na fu muy joxe misaal it ci loo xam ne mbooloo mu bari war nañ ko man waaye suñ doonut suñ booloowut nag dañ koy tële ba faw am na fu muy wax ci alquran ya ayuha nnaasu duriba mathalun fastamiu lah yaa ayuha naas li ëpp ci fi koy jëfandikoo mooy day wax ak kuréel bu néew ci jullit yi waaye ñam ko gën a jëmale mooy ñu gëm gutoon yàlla maa ngi leen di tegal aw cax maa ngi leen di cax maa ngi xool ba xam ku koy mën a càqi fastamiu la إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب نينا na ñi booloo ba defe ne yëkkati ay wagga jot ne ñun mbooloo lañ ñooy mbooloo sàngam lu leen neex booloo amul te booloo yàlla mooy joxañ nañ koy defe lu bari bari soo leen waxoon ne leen weñ yi di naaw yéen ñi bari xam-xam ci mbooloo mi yéen ñi ci bari alal am ci lu ne liggéey leen ma aw weñ weñ yi di naaw lu mu tukk ci gën a tuuti yàlla nee na lu bari bari bari bari la ñuy mujje mooy yor ay lex rek ndax duñ ko man ndax mbooloo lañ waaye boolooguñ ku nekk sa intere la bàyyi ci sama moroom nee na ku ci weñ saraxit dugg ci bakkanam di wóolu loolu muy bëgg a dee it mën nañ ko wër ku nekk naan defal nii defal naa waaye mënuñ ca dara yor ay lax rek kon mbooloo amul njariñ waaye mbooloo moo am njariñ am na fu ñu wax ci alxuraan it di wane ñàkk gu mbooloom kese kese am njariñ ñàkk gu ñàkk njariñ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرة كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وذاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بسنجيني بوخم لدينا تكون خاري باري مبولو لول waaye ndekete yo am na ca ñooñ dañoo bokk ci mbooloo mi waaye boolewuñ seen bopp ci ñi war a booloo nee na lim bari ba amu ca njëriñ ci waaj bu leen yàlla walla wutoon kanam kon boo tuut sikkim nga neb dënn kon mbooloom kese kese da ngay dégg ku naan maag sama mbooloo daa juum daa war a ne man ak sama sama mbooloo su fekkee la ñuy wax dëgg la ci ñoom moom it la wax dëgg ci moom ana nu ñuy booloo mi ngi mel ni nga fab suukar def ko ci am ndox nit mën naa fekke bañ ko cay def wala mu bañ koo fekke waaye saa bu ko mosee dana xam ne saf na suukar suukar a ngi ci waaye coono dëgg-dëgg moo jéem leen a tàggale loolu mooy lu booloo ni ñu koy waxe sax dañ koy boole naan wala ñu boole tuur waaye jàpp nañ ne kenn ku amum xel di boole ndox ak suukar di tuur moom wala su ko laaj loo ci jublu moo tax waroom boroom xam-xam tënk ko ci ne mbooloo mu ànd te mbooloo mu booloo te yàlla yàlla rek tax mbooloo mii booloo mooy ñu yàlla rek tax nee na fa ñuy mujj mooy alhamdulilah waaye su leen leen boolee lu ñu bari bari doole tey mbooloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek moo cay mujj bu mbett kenn mbooloo moomu ak mbooloo mi nag nu mën a demee ña ciy ay jullit nañ xam ne yàlla nee na ci alquran yéene jooy mën a am ci bokk ca mbooloo ma wala mu dem di booloo ji ak mbooloo ma yàlla santaane na xam ne lenn lu mu def moom kenn yàlla dana ko laaj ëllëg waaye lu mu ànd ak ñam àndaloon def ko it danañ leen ko bokk laaj ñoom ñëpp ëllëg ci biir jëkk ba yàgg mu génn ca mbooloo ma du ko ca musal faw ñu woo ko ne ko bañ koy def yaa nga ca woon te ngay bokkoon te fekk du mucc moo tax dund gu teey gu ànd ak jàmm joo xam ne nit ki bu ci faatoo mënees naa rafet ci moom njort nit mënu koo jële ci mbooloo mu muy bokk ñu di ko ci limale kese waaye mi ngi koy amee ci mbooloo mu muy dem di ca bokk mu fas yéene booloo ji ak ñoom su fekkee ngërëmul yàlla nga ca te muy dëgg ci moom te kattan su ca am lu mu néew néew mu fas yéene defee lu baax ba mu jeex tàkk ba ba ba ba yàlla di ñëw ko dogalam ndax lenn luy sax amul su demee ci alxuraan danañ ci fekk yàlla di jox wàll lool li nit kiy jëf ak di ko wax suñ jamono nag wax bari na lool waaye wax ji mënu fa bàyyi dem bàyyi fa jëf ja ndax ñaare koo gis mu wax rek mën naa am dañ ko waxal lu mu def muy delloo weccatam muy delloo ko ko weccatam yàlla nay lu baax rek danañ fekk alxuraan ay warab yu wuute yàlla di wax jëf ju baax fi muy mujj ak borom ëllëg ak fi muy mujj ak borom ëllëg ak ab safaanam su waxee fi muy mujj ak moom ëllëg ci lu baax safaan ba mooy safaan ba am na fu mu ne dee leen def lu baax lu ngeen def yàlla xamoon ne yéen a jëf bu yàgg waaye ëllëg si biir yonent bi mën naa doon seen seere ëllëg julli doon seen seere ëllëg te ngeen xam ne ëllëg nag da ngeen jëm foo xam ne fii dara du fa nëbb lépp li ñuy weer ci biti ñëpp xam ngeen xam keneen xam yamalu moo ne yonent bi qul yamalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna wa saturadduna ila alimi alghaybi wa shahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun amna ci alxuraan bu fo xone xam fa démé dañuy fekk mu nan ñu ku def nangam am nangam muy tay muy ëlëk amna na fi wax ne lu nit def mom lañ koy fay hal ma tujzawna illa ma kuntum ta'malu ëlëk ci bi ku tàllal ñu tek ci yit mu neex la mu naqari la ya ko defoon hal tujzawna illa ma kuntum taksibu ndax nit mën na wanaasu loo xam ne sàqamiwu ko keneen mën na koo sàqami waaye lu mu ko wóolu wóolu dana ko sàq dana ko jéem a sàqe ma dana ko wanaasu ndax moom moom ak wanaasu waayam léeg-léeg it mu xamal ñu ne li ñuy def lépp mu ngi ne jàkk ja ca loola inni bi ma taamaluna alim moo xam ñu nekk faak mbooloo mañ àndal di jayante wala ñu nekk faak mbo mbooloo mañ àndal mbooloo mañ àndal di laabirante te yàlla rek tax lépp mi ngi jàkkaarloo waaye léeg-léeg mu xamal ñu ne su ngeen ma gisut it am na ñu mu yabal moom yàlla ñu ànd ak ñun sunu dara du leen ump te ngoon ku jot ñu def rapport déposé fañ ko war a déposé su fekkee lu baax la ñu jàllale fa saasa su fekkee safaan la ñu xaar ba xam waa ji dina tuubam déet su tuubul ñu door a jàllale yabal gi mu yabal ñuy ànd ak ñun nag tekkiwu ne darul xam waaye day àtte ëllëg te àtte daa bari lu mu laaj إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون lu ngeen jëf danañ ko xam bind ko waaye lu ngeen wax it danañ ko jëf danañ ko bind noote ko maa yalfidu min xawlin illa ladayhi raqibun atid mooy kiraaman kaatibin waaye nee na it bu ngeen yaakaar ne yëngub adduna bii li muy xumb xumb jayante bi li mu fiy bari bari lépp fii lay yem rek ba lu la fi neex def saa boo nekkatul fa nga nekkoon tapetuñ la dara loolu ñun suñu até la ñun nit waaye yàlla nee na atteewul noonu luy waay def lu mu tuuti tuuti yaa xam yaa ko def yow kenn wala aw nit ànd def ko ñëpp gëm nañ ne yàlla mooy ray ku taxawoon fii ci kaw suuf si ne sañ-sañam àgg na ci di ray nag moom dana xam ne moom sañ ta ray waaye yàlla nee na mooy ray mooy du mooy dekkal ëllëg te liñ defoon fii lépp dara du ca naax saay mi ngi ko takk teg ci téere boo xam ne bii lu njëbind du far inna nahnu nuhyil mawta loolu ñëpp nangu lañ ko balaa faatoo am sax léeg-léeg ñu ne kii yàllaa ci des na xaar yàlla koo dégg ñu wax ko amatuñ ci moom yaakaar te e, mën nañoo dem ci kuñ am ku ne ku ne mën nañoo dem ci moom waaye bu ñu bu ne yàllaa ci yàllaa ci des moom xam ne yàlla rek moo sañal inna nahnu nuxyi almawta wa naktubu ma qaddamu wa aatharahum wa kulla cheyin axsaynaahu fi imaamin mubin daan ne amut lenn lu nit di def ba noppi moo xam muy lu tuuti ba ëpp te xamu ko sax far xamu ne def na ko wala muy lu rëy loo xam ne siiw na ba ñëpp dégg ko illa ahsaha lu dul yàlla bind na ko takk ko teg te bu ëllëgee dana ko teg ci sa kanam ne la lii yawaata doo ko miim laa yugaadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha loolu daa am ñu koy wax ëllëg ñoo xam dañ leen tàllal seen téere ñu ne jàkk da ci mbind yi ba yàgg ñu ne yaa waylana yaa walatana maa li haadal kitaabi laa yugaadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha kii da ndekete dara musu ko raw waaye lu xam nga lu muy amati njariñ léegi wa wajadu ma amilu xaadiran wala yadlimu rabbuka ahada ñu xam ne nag kon kenn defalu fi kenn dara kenn defu fi kenn dara yéen lu waay def boppam kenn defalu fi kenn dara mooy man amila saalihan fa li nafsi waaye kenn def fi dara it wa man asaa fa alayha ñaari aaya aaya boobu ni ko siñ mag bi firee woon daf ne man amila saalihan fa li nafsihi fa laam googu ñu mas ci suuf mask ak yat nee na mask ak yat gi mooy jëf ji waa ji mooy mooy féete kaw fi mu toll ñu ngi tollu ci ñenn ñi wute aw jiwu ku wut aw jiwu nam ko war a wute suñu boroom taw ba nawet bi àgg mu jënd oto ci kaw jëfëm ci baax la war fu mu jëm oto ba jëmee ko fa su dee ko mën a jënd fas mu jënd sa fas bu dee ko mën a jënd warax mu jënd sa warax waaye fu mu jëm daal bu fekkee ci lay war xel mu daal maam cay àndal mooy sama lii sama ñàq maa ko liggéey fu mu jëm moo ko fa yóbbu waaye wa man asa afa alayha nee na masque ak suuf amu ci yépp masque yi fa kaw lañu faray nee na mooy ki nga xam ne daa indi ci dëkk bi lu ñuy tere di ko nëbb donte yënuwu ko ci bopp mi moo ko yenu ndax fu mu ne moo ko fa bàyyi te xelam du ci jógee moo tax masque yëpp féete kaw ba mën a asa fan alayha loolu moo war ci kaw waaj waaye waaj du war ci kaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas na mas na xëy bis ne ana ci yéen ñi ku bëgg a dem aljanna ñu ne ko ñun ñëpp mu ne daa ami sart de ba ca jiitu mooy da ngeen di gàttal seeni mébét de leen bëgg lu ngeen mën a am te di ko wut ne ngeen ko war a wuti te fab seen gët yi ne ko jàkk ci bis bi ngeen fiy faatu ñu di leen laxas di teg ñetteel ba ngeen doxalee seen diggante ak seen borom kersa ñu ne ko kersa xanaa ay bët kersa xanaa ay bët koo xam ne gisoo ko nu kersa doxee seen diggante mu ne waxuma kersa yi ngeen di wax kersa diggante yàlla ak jaamam bi mooy boppum nit kii ak la ca aju lépp lu mu cee bëgg a def mu bàyyi ne yàlla nga koy gis làmmiñam bii bu mu ca wax lu mu wërta wax gëtëm yi bu mu ca xool lu mu wërta xool gémmiñam gi bu mu ca dugal lu mu ca wërta dugal di ko lekk wala mu di ko naan noppam yi bu mu ci déglu lu mu ca wërta dégg kaw boppam bi bu mu ci yan lu mu ci wërta yanoo na ci yan lu moom waaye biiram bi li wër biir bi lépp biir fi mu nekk ci nit euh, ñëpp laalante ak moom li ci kaw laalante nag moom li ci suuf laalante moom mu ne bopp ak biir képp koo xam ne def ci biiram ak la ko wër lu mu ci warta def du def ci boppam ak la ne ca bopp ba lu mu warta def di fàttaliku dee fu mu toll ne fi ñukk xoy-xoyu àddina yii nee na ku ko def doxale na kersa digganteem ak suñu borom te yàlla kenn du dox kenn du ko rus mu di la ñàkke lu dul rus rus mu di lu dul mu di la rus kon boog suñ mënoon a fexe ba ku ñuy àndal ñu di ko seet bu baax bañ a bokk kese kese ci am mbooloo rek moo xam ne tudd ci léegi mbooloom politique da ngay dégg ku ne jëmul fenn àdduna rek lay am xanaa daa fàtte signature yi ñu signé di ci tëj nit ki wala ñaan nañ ko rey wala ñaan nañ ko réew mi wala ñaan nañ nangu alalam wala ñu naan nañ toj këram wala ñu naan nañ ko def mandat dépôt yàlla xam kañ lañ ko àtte xanaa dañoo fàtte loolu ne ku ko fekkee bu fekkee ne nga ci cell ca nga te àllaaxira dañ koy àtte alaysa allahu bi ah alaysa allahu bi ahkamil hakimin loolu bis bu ko yàlla di wax moom rek moo ko sañ alaysa allahu bi ahkamil hakimin bis ba mu koy wax li ma nel mulkul yow moom rek moo koy sañ te ñépp أليس الله بأحكم الحاكمين بلا أحكي لمن الملك اليوم نيب ناي ما لله الواحد القهار موي اليوم تجوسا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم تاي موم لو واي دون جاي تاي مو لامب كو مسا سيني كاي تاخو في خول مسا خول سيناتي بنيو تامباركو كو مسا جوخي لو خاني مومو كاي كو مسا مايتا مومو kaay taxaw fi lu waay defoon dañ la koy delloo laa zulmal yow li ko waral mooy inna allaha sariul xisaab machine bii ngay introsé tic tac tac moo wax la lépp yàlla ko gën a gaaw fuuf ndax lu tuuti la ci liñ jëlee ci xam-xam suñu borom bi ci wàllu xisaab moo tax diggante mbooloo ak mbooloo suñu borom indi na pexe kuy bokk del dama bokk ci booloo booloo ma wa an law istaqaamu ala tariqati la asqayna la asqaynaahum maan gadaqa su fekkonte ne nit ñi faral nañ di bokk ci ay booloo te bañ a bokk mbooloo kese kese rek naataanga dutu fi jóg dana fi sankite dutu fi toxoo te fu gisee mbooloo suñu borom tudd ko ci alxuraan it ñam cay teg mooy kuréel ba gën a bari waaye mooy ba a ñàkk solo xaalal mala ullasina istakbaru min xawmi kullama marra alayhi malaun min xawmihi saxiru minhu kon mbokk yàlla nu yàlla dimbali wan ñu fa booloo nekk te musul ñu ci mbooloom kese kese rek moo xam ne da ngay yore aglabiya saaxiqa mooy majorité mécanique loo bëgg rek ñu def ko loo wax ñu def ko yàlla day àtte ëllëg ku ne xiim ci loo xam ne da ngaa waroon ne déet ëllëg nga ñëw te bis mi gën a jege te mbokk yi juróom benn fukki at ku xas ba am xamal ne li waroon nekk ci sa kanam mi ngi ci sa gannaaw léegi la fiiti ana loo dëgmal yowmal qiyaama bis bu set muy gën di jege su dee alal boo ko amutoon duutoo ko am su dee pal soo ko amul mën nga ko am de waaye bànneexu palu dëgg dëgg dëgg boo amee juróom-benn fukk ak jëm kaw dootoo ko ne dootoo ko yëg ndax dootoo ko tal léegi tey nga tàmbalee nelaw fi ngay toog ndax doo nelaw guddi léegi tey nga tàmbalee fàtte am na lu ciy mujj foo daan jaar ñu di tàccu tàccu mooy tatagal ci salum salum gatandu bu dee si réew mi mooy dajal ay yoxo waaye looy mujje foo jaar ñu yuuxoo loolu nag dara ci àdduna jëru ko loolu du mujj gu rafet moo tax li tàmbalee fii fii rek lay yem njuumte la waaye bokk ci mbooloo amul njariñ moo xam ne ëllëg si bu ñuy waññante weex weex waaye bokk ci ña booloo nag yal na ko yàlla defal mooy ñi nga xam ne seenu mujj alhamdulilahi rabbil alamin ndax si Masamba Jaw sam bañ ko ne sëñ mag bi nekatu fi daf ne alhamdulilahi rabbil alamin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dadi firi wax suñu borom ji muy wax ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal alamwali was walthamarati wa as sabirin alladina ida asaabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joojee اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون من لدن فري ني نيكو لوتاخ غاني الحمد لله رب العالمين ان الله وانا اليه راجعون بن الاب جوري بايكو ناف داغا نان ان الله وانا اليه راجعون ناخ مصيبه لا مانك ني سي ليمبي اي ارشاداتهم اك توجيهاتهم كنا نكو تي ووت واي بو في نيكون كوكو مو غنا باخات لول موي مصيبه ني نيكو لوتاخ غاني الحمد لله مو ني موم وان نانيو او يون jaar teg nañ ci suñ tànk ba ñu ngi sa ña ngay seen dëkk ba te duñu wàññi ko te gunge du àgg moo tax ma ne alhamdulilah rabbil alamin kon bokk yàlla nañu yàlla dimbale si bañ bokk ci mbooloo yi nga xam ne fa ñuy mujj ak ñañ àndal mooy alhamdulilah rabbil alamin te bañ ñëw boole si ñi nga xam ne fa ñuy mujj mbooloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin